dikkati naa ku mën na def dafa mel ni lii la Ousmane Sonko ni ki démb doon wax gaa yi tribune yéen a kaay na ma askan wu ba mar day taali moom Ousmane na ku ko àttee l'indépendant a kaay na ma Ousmane Sonko nee na waxtu bu wax bu jotee ci dina dem ci àtte ba am déet dana ca àddu laataa loolu moom gatsa gatsa la a kaay yàqu-yàqu yu am ci réew mi yu bëri magistrat yi xam ni moom Ousmane Ousmane Sonko deesu ko àtte yéen kaay bi dee média bi ma moo ne day procès baa ngay dem ndax coow la ci boppam ki koy àtte mooy Abdoulaye Ba source a ma Ousmane Sonko nar na dugg ci guuta de ndax article L bi ci boppam moo ko nar a tënk moom Ousmane Sonko mooy paaka ci put ci moom ndax bu yombee ba yomb moom mooy buñ ne suba lañ koy àtte dina daal di présenté wu ci greffier ba am fa ab audience ngir wan justice ne leen dinaa ñëw suba ci àtte bi moom jiital chambre criminelle bi it mën naa sàkku bu ko neexee ñu jàpp Ousmane Sonko suñ ko defee moom maire bu coor njiital chambre criminelle bi mën na koo déglu laata procès ba ni ko article L 238 bi bëggee yéeni kaay bi ne ma tënk na ko saa si téembe réew mi ko di jee jox kàddu professeur Iba Bari Camara mu xam leen ni bu ñu waree amal procès diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr nañ ko amal ci huis clos ndax nag loo ci mënti déggit kàddu yi dina ñagas lool ñaaw lool coow la turbine yéeni kaay ne ma Ousmane Sonko ndax dina dem wuy ji atte boobee ba atte di ca am ba it wax yu ñaaw di ca génnee le quotidien le quotidien en tout cas Ousmane waajal na boppam nee na bakkanu Macky Sall la wala bosam soit président Macky Sall daf leen di faat ba jeexal leen wala it ñoom ñu faat ko bés bi le journée en tout cas yóbbu nañ coow li ci procès son Sonko mobiliser ay troubam xam leen ni daal dinay defar testament ndax dossier bii moom pare na ci tribune yéen a kaay ne en tout cas lànk na procès ba bés bi le journée amoon na fi ci Karim Meïssa Wade ak Abré Khalifa Babacar Sall wo ay militant am ñoom it ñu daal di waajal l'enquête quotidienne ma combat boo xam ne dina jur faatu bakkan day lañu a tàbbi ci mi Walf xanaa déggu leen Ousmane Sonko wax président Macky Sall daf leen di faat wala ñoom ñu faat ko Sonko ne la nasaraan ba naan œil pour œil dent pour dent loolu day lañ fas yéeneeg président Macky Sall mi Vox Populi ne Ousmane Sonko nee na yegg nañ terminus ak moom mbir mi kay day daal di continuer jurub guerre moo tax it yéen kaay bi ne ma Ousmane Sonko ma ngay waajal combat final ba di xam le ni président Macky Sall nag bu dakkalul coow lii ñu xeex ak moom te bu ñu ko ni mandaam bii du ko yeggali coow li nag mooy defante moo ci des bu ñu nee appel à l'insurrection la sama ngañ Ousmane Sonko ne Pastef benn candidat la am candidat boobee Ousmane Sonko la tudd kenn mënu koo dindi l'observateur ne loo ci man ci déggit moom Ousmane Sonko showam bii ab combat la boo xam ni day ñu bañ ko faat fa yàlla mi ngi ci yéene bi ne ma nee na def na testament am waaye itam boo leen seetloo bu baax a baax ni mu radicalisé woo nii woote jàmm ci boppam ma nga ci biir wax ji Ousmane Sonko ma ngay woo médiateur ngir ñu ñëw wax ci coow lii nag yàgg na koo wax de ku artuwul di nga foofu nag lay bañ ñu yegg ndax nag daanaka bu songoog président Macky Sall yor armée yor gendarmerie yor police day metti rek waaye butéelu ndox la boo xam ne da nga koy sànni biir ma Mouhamadou Lamine Massaly ci direct news naan Ousmane Sonko na bàyyi show bi na dem wuy ji ngir mën a setal deram moom ma Mbaye Niang ci la mandat daal di xam le ni Ousmane Sonko la mu xamul moom moo di mi ngi ci pax te pax nag boo ci nekkee da ngay fexe noo sulee ko waaye doo ko gën gas ndax nag loo ci manti déggin moom Ousmane Sonko ci boppam Mame Mbaye Niang moo xam le ni woon dafa yàkkamtu dem procès ngir nag mu wane ni mbir mi complot la tey nag tegal nañ ko procès mu ne du dem du fi amee wax waxeet gi ci boppam lan dul nangul Ousmane Sonko ci mim réew procès ba kay daf demal boppam ci cëgal guyam wala it ñu jagat jagatee ko roñ roñeeg moom ni xorondong yóbbu tribunal daal di attee mambay ne ko bépp procès buñ la woo di nga wuy ji daa nga wuy ji aji raabi saar waaye ñaari fan ci weeru février yi di nga ma wuy si ndax nag porté na ko plainte ci li nga xam ne moom Ousmane Sonko daf ba 24 heures yéen nangul di nga atte Ousmane Sonko naan président Macky Sall na waajal boppam de na waajal faat askanu Sénégal bi nga xam ne moo leen jiite waaye na waajal it ñàkk mandaam bi àlluntin naan nañu artu procès Ousmane Sonko Adji Sarr bi suñ ci waxul mën naa yóbbu réew mi ci guerre civile yéene cabinet 2023 neexul ba neexul waaye atub tiit la ci askan wi ak Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne ñi ngi cetal bët Ousmane Sonko cetal beneen bët ñàkkum nguur gi askan wi ci boppam nekk ci tiitaange boo xam ni maar day taali opposition bi mel ni dañoo jël buum takk seenu baat ñu tiit saa si tembe na xaajaloo moo fi amul place askan wi foo mënti féete nañu boole seenu doole ndax réew mi fu mu jëm neexul ba neexul waaye ab guuta la vox populi xëy jox kàddu la Diop moom njiital LONASE mel ni ku naan coow du am ci réew mi na xel daal Ousmane Sonko day dem wuy ji wala ñu jàpp jagat-jagatee yóbbu atte par force laas yéen kaay ne ma Khalifa Babacar sàll candidat la ma ngay ñaaw lu président Macky Sall ni mu nekkee ci réew mi segg ba wut ay candidat boppam l'évidence yéen kaay ne ma AFP bu Moustapha Niassine am nañ seen woon Aliou Sarr laas yéene kaay na ma investiture yaa ngi mel ni tulleeg maale moom président Macky Sall moom waa partem investir nañ ko Mountaga Sy ne mooy sunu candidat Abdoulaye Seydou Sow ne mooy sunu candidat Sud Quotidien ne ma loo ci manti dégg coow la fi amoon ci xaalisu covid 19 bi ñu ne furaas lekk xam ngeen ku ñu woo sept sages ci boppam la ñu woo nee ñu kaay ñu daal di leen di àtte professeur Ngouda Mboup daal di leen xamal ne fi mu toll nii nag ñoo yor bi diggante institution beeg askanuk réewum Sénégal saa si tembe nag bu ñuy faral ñii di gàntal ci des ko mën tuddee demee ba député yi mënuñoo jël nguurug Sénégal andi leen ci assemblée nationale laaj leen lu tax defuñu nag coow day am ci réew mi tribune yéene kaay ne lii day tax ñu daal di sampub laaj askanug Sénégal ban kàddu la am ci ñu yoree réew mi saa si tembe askan lan goo xam ne nii dañ leen tegee de côté rek jëf leen ñu jëf wax leen ñu wax nii leen ñu jëfandikoo seenug alal te amu leen sañ-sañ àddu ci moo tax yéen kaayub des médias bi sampub laaj ban place la askanug réewum Sénégal am ci république bi le quotidien le quotidien ne jihadiste yi day ban place la ñu am suñum réew jar naa laaj saa si tembe day ñu ngi bëgg a infiltrer réewum Sénégal jaare ko nag ca est ba am na koo xam ne nee ñu ab terroriste la jàpp nañ ko daal di koy dóor ba maar day taali ca sadatu yeneen ñaar ñu àndoon ak moom daal di daw maar day taali le soleil yéene kaay ma boobu ca Kaffrine daal di nañuy dalloo caada ak cosaan ci onzième édition bu nag bi l'évidence yéene kaay ma ci waxtaanam ak transporteurs yi Mansour Faye dafa ne du ca deltu ginnaaw les écoles yéene kaay ne ma moo taxit transporteur jugunu seenu grève ya dañ caa rax nag di def acte de vandalisme ci bi yàq ay bus ñeent ci ñoom daal dinañ leen di niib jàpp sunu lamb ne ma loo ci manti dee git saa si tembe daal lamb tekki na sponsor yi tàmbali nañ ñëw PPV baa ngi dox l'info yéeni kaay ne ma firnde gi seen maire bu Malicounda muy ñaan mbëri ñu daal di gëm lamb ji ndax nag loo ci manti dee git métier la te métier nag dee su ko xee lamb day féexal xol ab discipline sportive la waaye dafa ànd ak caada ak cosaan lamb yi dafa ànd ak spectacle màgget seen naan yi gëm leen lamb te téye ko mooy dëgg tribune sport ne ma coow laa nga ca course hippique bi de ci loxo yi kan la kopp après course hippique bii di daal di tàbbi laaj bi la turbine sport xëy samp niki tey tey jii Cheikh Tidiane ña ngi la xam ne ñooy borom fas yi naqarlu ko lool éleveurs yi jokkee yi nga xam ne ñi ngi en activité même ñi retraité entraîneur amateur kenn àndul ci tabaat gi ndax boobaak léegi nee ñu koppar gay jugee ci course épique teguñu ko bët gisuñu ko kan moo koy jël ci kan lay profito libération yéeni kaay ne ma bu ñuy wax profito lii moo tax monsieur Silva ab professeur la boo xam ni ma nga woon ca Grand Yoff maar day taali la doon def ay am ci diggu cours mathématique ak PC da daan jël awra góor ak bu jigéen dessina ci tableau ba xamal xale yu ndaw ay mineur naan leen rapport sexuel dafa baax ci doomu aadama yéen kaa bi ne ma da daan raay yaramu élèves yu jigéen yi daan leen tegal ay film musiba ci classe ba daan leen proposé séq ak ñoom ku ko def mu may la note bu ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jaam te yéen doog jàmm ah, dëkk yi nga xam ne dafa am suuf bu fa des coow dana fa bëri parce que dañu naan maire bëtam ci yenn ci ay suuf wala ki nga xam ne moom mooy autorité administrative bi donte dañ leen di tuumaal waaye ba léegi amuñu ci benn firnde ne ni préfet bi la wala sous préfet bi la mais li ci ëpp ci mbirum maire yi lay doon combien de fois ba fan yi passé rek maa ngi dégg benn maire ou premier adjoint au maire bu ñu dugal ci wàllu kaso ndax lan mbirum suuf donc li état mën a def mooy ay loi ngi fi ay réglement ngi fi mais nañu ko appliquer ci kaw nit ñi ndax yow Mansour nga dem mairie ba ne ni jox nañ la ca conseil municipal attribué nañ la benn parcelle a usage d'habitation nga ne ay la yoon maa ngi samay kayit bàyyi la nga dem tàmbali tabax fa nga jëlee xaalis ba nga tabaxee dem nga àbb banque dem nga jaay sa benn oto def nga lii def nga lële pour tabax nga tabax ba ne dëkk rek a des ba équipe nga ñëw ñu bindal la ci benn arrêt d'escos ne ni amoo sañ-sañu dëkk amoo sañ-sañ lii sax dañ koy far daaneel mais loolu kan ngay lor sa njaboot ak yow kan moo la lor ka la jox kayit bi te mu leer ko ni kayit ba mu la jox baax na baaxul mu leer ko ni kayit ba mu la jox mën naa indi ay litige mais nañ ko jaarale ci yoon yu ñu war a jaarale topp loi nu mu waxee topp li nga xam ne moom mooy règlement li mu waxee dan lañ la wax ne la ni léegi bàyyi sax boo ko amee mën ngaa soppi sa bàyyi boobu def ko titre foncier foncier kan moo ko moom état du Sénégal yow man ñun ñoo ko moom Sénégal la ko moom léegi ci biir titre foncier boobu nga rek ñu ne la léegi euh, dañ lan lañ la wax dañ naan dañ ko dagg dañu ko ci TF bii mooy titre foncier boo xam ne ni ci domaine national la bokk Sénégal moo ko moom ñu ne daggal nañ la ci pàcc trois cent mètres carrés cinq cent mètres carrés six cent mètres carrés ne la nag dañ laa may diir ne la bu fekkee ne tàmbali woo fa def dara ci lu jëm ci wàllu usage d'habitat d'habitation wala ci lu jëm ci wàllu commerce boo fa tàmbaliwul def dara man état du Sénégal am naa sañ-sañu nangu ko foqatu ak solo parce que am na keneen ko ko soxla. mais est-ce que bi itam am na droit joxe acte administratif ni wax Mame Mbaye Ndiaye ni ko yaa moom kër gi alors que fekk na conseil municipal bi ñu jëlee dogal boobu noonu euh, sous-préfet approuvé gu euh, defagul euh, approuvé. mais parce que topp ñu yoon. parce que ñu yoon. Mm. dañ la ne parce que dañoo xam ne Omar moo leen ko joxoon mais sous préfet ci moom la tardé. parce que toppuñu yoon approuvé woon na ñu woowee benn loi sur le domaine national boo xam ne dafa ñëw ne ni euh, yu ñuy approuvé kenn moo ko mën def muy sous préfet wala préfet ñu ne la am na fooy àgg. sous préfet préfet sax amuñu ci doole gouverneur a koy approuvé ñu ne la am na fay àgg boo xamee ne yooyu yëpp du ci am doole président mooy jël dogal jaarale ko ci ministre ci euh, ministre de l'économie et des finances bi nga xam ne moom moo boot ñi nga xam ne ñoom ñooy waa impôt et domaine muy secteur u domaine muy ki nga xam ni par exemple bi Mame Boye jaw jiite mais loolu yëpp day fekk yow boo ñëwee en tant que conseil municipal conseil municipal du ci mbirum suuf rek de conseil municipal bu nee ni dañuy génne budget pour nangam ak nangam euh, lii la ñu koy dox mais sous préfet dafay teew wala préfet dafay teew approuvé ne ni lii mën naa ne parce que moom mooy autorité administrative bi gouverneur moom mooy représentant au président de la république ci biir région bi donc yooyu yëpp bu fekkee nag maire bi dafa ñëw jalgati loolu moom mooy indi nag jafe-jafe yi mais loi yaa ngi fi règlement yaa ngi fi texte yaa ngi fi il suffit les appliquer mais dans la dans dans dans toute la rigueur que que que que nécessite la situation. Euh, gis nga application euh, yi ngay wax noonu Birahim peut euh, ñi ko xam mooy peut-être ñi nga xam ne toll nañ ci benn niveau wala yegg nañu fenn fi c'est très rare ngay gis borom doole bu taxaw naan délibération lañ ma jaay signature préfet am monsieur tout ça. Mhm. xam nga ñan la ñuy ñan dund loolu. ka nga xam ne taaba taaba la kërti kërti na ba dajale ñaar dërëmam fukki dërëmam ba dem ñu jaay ko benn terrain xamul sa signature yi si nekk fan la jógee fu mu nekk ñëw kërti kërti ba tabax ñu xëy un ñëw daaneel ko parce que fa nga jënd foofu gis nga la sensibilisation dañ defar pour ñëpp ñëpp xam ne boo amee këyit wala booy am këyit fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar ba sa këyit daal di daal di nekk lu lu yoon maa ngi koy fàttaliku Omar Badiane benn leader politique la bu nekkoon Thiès Thiès Nord xam nga ouest may dem ñuy def benn interview mu may xamal ne foofu ñu dëkk noonu quartier boobu du kenn ku ci am këyit xaw ma acte lañ acte acte administratif bi lañu am mais amul kenn ku ci am këyit te bu fa dëkkee xaw ma ñaata at mais du këyit bu nga xam ne xam nga am na këyit yoo xam ne boo kàmmee mhm. amoo droit sax jaay terrain bi parce que dafa mel dañ la dénk dañ la ko abal këyit këyit la goo xam ne dafay fi ne dañ la ko abal mais ñooñu ñaata at ñu dëkk fa ba tabax ay ñoo xam ne air di dem fàtte nañu sax ne foofu amul këyit ba après ñu dox ginnaaw di lijjanti ay papiers yu nga xam ne mooy gën a dëggal ne foofu mën nañ mën nañ fa dëkk gis nga woote nañ fay réforme foncière yu dul jeex nañ tëggaat suuf si nañ ko xoolaat et présent président Macky Sall si boppam moom moo ko xam xamle suuf mën na taal réew mi et pourtant terewul ba léegi les mêmes jafe-jafe lañ fi lañ fi nemmeeku waxoon nañ fi fan yi nekkoon ñi fi am ay kayit yaa ngi koy fàttali ne boo amee benn délibération wala acte administratif boobu mën nga def ay kii ba mu defal la ko titre foncier am nañu si bénéficié wu ñan ñoo si bénéficié wu kenn xamul. Hmm. fan la ñu féete ñu si bénéficié wu est-ce que du mbirum coloration politique rax aussi. en tout cas ñi am bëri na interrogation moom ñu ëpp foofu ndoo la ñuy am titre foncier. wala bàyyi ci Sénégal te fu ñu rek la ñuy <laughs> alors ñu wax ci population bu village bi tudd yale nekk ci arrondissement bu Yang-Yang ci département bu Linguère foofee ci wàllum ndox mi la ñuy wax ndax nee nañu seen euh, gestion ndox ba daal loxoy sous fa ba da caa setul Matar Sarr Ba moo yor kàddu ndaw ña moo dénoncé ngàbbinu ndox moomee ak xaalis ba ñu teewlu ko. askan way yeewoo si village ba ñuy duppee Ganina Yel nekk si département bu Linguère dañoo mer ba futt jëmale ko sa sous-préfet ba Matar Sarr ma ñuy teg ab baaraamu tuuma ak na muy gérer koppar yeeru sa forage. nag dafa door ak victoire def euh, defet ci diggante Uganda démb kon mu taxaw na taxawaay gu am solo foofu ci Annaba la ñu dem fekk fi soxna Fall mu dikkaat mu gën a yaatoo ci joŋanteeg Sénégal gi ak ñi di waa RD Congo démb la woon ba jotee. Sénégal dugg ci ak xarañtaay wane fulla ju mat sëkk naam amoon na ay déchets techniques waaye dangay ngay sentir sur motivation boo xam ne gaynde Sénégal lu ko yi indi nañ ko ci kanam RDC moo ne day moo doon équipe favorite ci bile compétition mu làpp ko làpp yu metti ñetti bal ci dara ci ndoxteel gi laata ñuy dem mi-temps benn ci dara la woon bi ñu dikkaatee la ñaari jot a dugg Sénégal loolee may ko mu daal di jeexal phase de groupe yi premier daal di gàddu ndam la am juróom benni poñ mu di loo xam ne da koy may mu demaat ci ñaareelu yoon ci wàllu histoire ci qualification mu nekk ak mbetteel nag ci léopard yu RD kongo yi nga xam ne saa su nekk seen ñaari ya ndam yi nu ma sa am ci CHAN moom la ñuy damoo di ñu ko fàttali waaye tey jilee gis nañu ne ñoo jël ndadda ci groupe B bi ñu bokkoon Ouganda sax moo leen raw nekk ci ñetteelu place bi amoon 4 points RDC ci am ci bile compétition bu ñu dikkee ci contenu match bi ñu gis gaynde yu Sénégal yi àndoon ci ak détermination fexe tamit di créer surnombre ci camp adverse bi bu ñu ñàkkee rek replier waat delluwaat seeni camp taxaw waaye bokk na ci lu ñu war a jooyantiwaat mooy centre yi dul rek jaar ci yoon du jub ngir mën fa am njariñ waaye tam lu jëm ci wàllu bal arrêté yi lu ñu war a liggéeyaat la kon Sénégal dina dem ci quart de finale yi ñuy xaarandi ci groupe ngir ñu xam kan lay dajeel ci wàllu jongante quart de finale yooyee ñu jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru janvier bi ñu nekk. soxna Fall di ko jaajëfal foofu ci Anaba mu nekkoon nag victoire gu yaatu en tout cas liggéey bi nag euh, bu ñu sukkandiku ci kii di euh, Moussa Ndiaye Elimane Cissé ak euh, Malick mbay jàpp nañu daal liggéey bi nag depuis ba ñu amee ba léegi ñu ngi si doon liggéey ngir nag gën a mën a concrétiser seen ay occasion ñu teewli seen kàddu ak kii di soxna na début gérer nañ ko quoi ndax final la woon suñu ñaar ñëpp mais yàlla jàppale nañu bañ génn si trois points. suñu objectif mooy gagné la parce que maa ngi ko doon wax ci démb may leen di ngeen gis parce que sénégalais yi boobu ba léegi ñu ngi jàpp di xas naan lu ñuy rate dafa bëri jafe yu dañu yi dugal moo tax euh, may leen tey di ngeen gis beneen match moo tax euh, dañoo manqué woon daal ndax dañ ko soxla woon tey moo tax euh, ñu manqué woon ñëw di on va concentrer sur les quarts de finale j'espère qu'aujourd'hui on a réussi à faire mu nekkoon nag euh, kàddu euh, kii di Moussa Ndiaye Elimane Cissé ak euh, Malick Mbaye di fàttali kon Sénégal ci mujjantal ga nag moo nekk pays ci poule B bi nga xam ne foofu la nekkoon am ma juróom-benn poñ moom la nag la fas yéene àndal ci quart de finale bi Côte d'Ivoire moom démb dafa daan ñi di waa Ouganda ñett ci benn Côte d'Ivoire jël kon ñaareelu place bi am ñeenti poñ Sénégal nag day xaarandi kon ci diggante Mali ak Mauritanie ku ci jàll rek kon si la fas yéene nag laaleel ngir nag lu soxal yooyu le quart de finale Côte d'Ivoire moom dina nag laale ci Côte ci quart de finale gi ak Algérie mi dalal boobule compétition kon ci euh, poule A bi tey jële nag euh, jàppal ne euh, poule C bi sax ñoom dañuy nag wëyal seen ñetteelu bëccëg 19h Soudan la ak Madagascar Ghana moom qualifié na ba noppi ngir nag lu soxal quart de finale lu soxal boobule poule di poule C. IEF bu Sàngalkam dafa mel ni dañoo door seen i activité sportive ci 2023 euh, bi. waaw gannaaw ba IEF bu Parcelles Assainies ni ñu ko defee ñoom tamit waa Sàngalkam door nañu nag lu soxol nag lépp li nga xam ne wàllu tàggatu la ci biir euh, zone le kon nag ren jii sax thème bi ñoo ngi ko accès nag lépp lu jëm ci wàllum inclusion euh, soxol wàllum tàggat yaram ci noonu dañ ciy teewlu kon kii di inspectrice inspectrice bu IEF bu IEF bu Sàngalkam di Fatoumata Diallo. nekk handicap euh, naka la sport bi di leen mën a jëlee en charge donc yooyu yëpp donc sensibiliser nañ euh, euh, communauté bi et yi surtout nga xam ne ñoom ñoo yore ndongo yi bu ñuy def seen PCME bi nañ nañ leen bàyyi xel nañ leen bàyyi xel bu baax a baax pour que ñu bañ leen ber ñu ñu ñu seet nu ñu leen mën a utiliser ci biir sport bi parce que boole boo demee ci yenn pays yi ils font des sports qui sont adaptés à leur handicap am na ñoo xam ne dañuy def handball am na ñoo xam ne dañuy def euh, volleyball tu vois donc il euh, y a toutes ces stratégies qui sont développées à l'école et sur ça euh, sur ce du moins ci passage bi maa ngi ci gërëm bu baax benn projet bu ñuy wax vers école nag kii di inspectrice euh, bu IEF bu kam di Fatoumata boobu boobule nag lancement lu soxal nag wàllum sport ci biir école yi ñoo ngi ko parrainé woon euh, kii di Rasoul saw muy sàkku rek ngir nag ñu gën a dooleel lépp lu jëm ci wàllum infrastructure sportive foofu ca gox ba ñu teewlee kàddoom te centre yi baax nañ si trop mais centre yi aussi c' est tellement sélectif ba nga xam ne ni pour ñu jël ñëpp dafay jafe mais école yi bu mu yaatoo bu ñu développé sport scolaire bi lépp lu ñu soxla si sport Sénégal pour mu développé rek dafay yomb yaa si tantan sport scolaire léegi ah, dafay bokk trop si lu booster suñu football suñu athlétisme suñu activité sportive kon bu demee tey ba président de la république. def fédération sport scolaire suñuy décret bi xam na li si war a def naam am na volonté am na engagement mu ciy def mais aussi ah bëgg nañu mu gën yokk ba école yi ñu doter leen suffisamment de moyens pour booster le sport. ñu waxtaanee kon amical bu officier ak inspecteur yu douane ñoom ci boppam randonnée pédestre la ñu woote woon. waaw démb la woon ca diwaanu Ndax Géej lépp rek ngir nag lu jëm ci wàllum nag journée nationale des douanes ñu fas yéene ko amal ni ki ñaar fukki fan ak benn ci janvier gi ñu nekk seen randonnée bi nag démb ñoo ko dippee woon vecteur euh, sport bi sport est un vecteur intergénérationnel mu nekkoon nag randonnée boo xam ne amoon na mobilisation bu mag foofu ca diwaanu Ndax Géej ci ciy teewlu kon euh, ki di euh, Babacar Niang mi nga xam ne. ne jot naa nag taataan kaddu colonel Ousmane Kane nekk président amical bi ñu teewlee kàddoom. boobu nag moom la communauté internationale joanière tàmm pour célébrer ko ren nag fii lañ koy célébrer ci Ndar jeudi lay doon le 26 léegi nag chaque fois bu ñuy célébrer bés boobu suñu amical amical des inspecteurs officiers des douanes mooy kuréel bii di boole inspecteurs yi dañuy organiser yenn activité pour se rapprocher des populations mais aussi faire passer un message population yi loolu moo tax dimanche buy jiitu chaque fois célébration bés boobu dañu organiser randonnée pédestre pour dem ci population yi ndax tey boo xoolee ñu fi nekk rek population yi ay population yi ñoom ñooy agent économique ñoom ñoo jënd di jaay donc si euh, manifestation yu mel nii la ñuy mën passer certains messages donc tey randonnée bi message bu ñuy jàllale si population yi xam ne ne douane quand même ci euh, administration boo xam ne day liggéey pour état bi pour citoyen mu nekkoon kon colonel Ousmane kan nekk président bu amicale des officiers inspecteurs des douanes ñuy waajal nag lu soxal seen bëccëg bi nga xam ne moom la ñu nag sargal lu soxal wàllum douane ñaar fukki fan ak benn lañ koy amal maa mbay kon li ma fa fës jëm ci wàllum xibaaru tàgg yaram ñu joxandi daje incha allah ci kanam tuuti émission suba teel 12 heures nag dañ ci ànd ak kii di soxna Yacine Seck ci Zik FM 13 heures El Hadj Mouhamadou Mansour Diop lay doon ñu gën a yaatal lu soxal wàllum tàggat yaram surtout nag euh, juróom-ñaareelu édition CHAN bi Sénégal qualifié ci quart de finale. quart de finale waaw félicitations. moom lu baax la Pape Thiaw et encadrement technique bi yëpp par rapport ak équipe bi nga xam ne euh, daanaka 11 ans ngi nii ñu ko jëm ci boobu les compétitions egg ba fii. ci bi jaajëf sama waay. ñu leen félicité di yaakaar ne kon nag dañuy continuer ba tey ci compétition bi ndax nag coupe bi la soxla. waaye hmm. dañoo miin coupe. waaw ah, euh, dañ ko tàmm. waaw ah, manque wu ci la. Ah, moom moo ci des.